Abi biz. Nice magawa. Salin Shark hein. Jam boy. Waaye nice alhamdulilah. Booy bu ñu lekk am. ma leen gën a sonn téeméer junni yow. Instant bi dama génn suñu kër ma sax reer. hey. ma leen gën a sonn bu ma yuux sax damay yuux. ma leen gën a Rizal naka yow sa commande bi pare na de te nag dibi ginaar bi SFC daal ko defal gaawal gaaw nga jël si. waxtu bi jot na de. waaw man xam naa maa ngi julli ji gee quoi. salaamaaleykum. ah kooku la Baye Sarr. ah sama waa ji. dafa mel ni ñëw naa de. say social man oh! na. mun naa dem ci biir. waaye yàgg na dama ci biir. maa ngi ci biir. say social bi man na bu yàgg a yàgg. mooy na. waaye nepp. maa ngi ci rek baaxul maa ngi ci biir. ici c'est l'hôtellerie Serfal. mais actuellement c'est mon numéro mom moko yéré ba tax nak képp ko xamné ya nga jëgë Dakar wala jëm Tamba wala Kédougou té jaaro fi ci Dimitri Sefal en face wétu ci église bi fi ci Kaolack ah ya nga xaru dé wala sek xam na fi jaar dégg na fi ben yoon numéro téléphone 77 le 577 31 07 ba tay bu la nexé mën nga ko wo ci 77 025 25 72 bu wa amel nga jot <laughs> eh sa way daf mel ni paré na dé bismillah ñu ñëw

The blood of Jesus. Ah! Ah! <laughs> <laughs>